boobam wax na ne ma taalibi yëpp li maa ngi leen di ñaanal ndax damaa ñëwee rek mu ne ma tàmbaleel tatawuraat baat boobu la wax tàmbaleel ma ci tatawuraat naar yëpp nettali ma <laughs> ma daal tàmbali ma tàmbali nettali ko Filistin nag yëpp mu ne waaye yëpp yàlla nañu jàmm daal li may leex nag taalibi ma li si ne nag mu ne mu daal mooy taril ci xasay xasidi gum jóg jógee jànn ci jàll ci geneen tari ci nit li mu ci mokkal kenn xamul nu mu toll day wax sax lu xoromu day wax li ma ci tareel di tari di tari ba mu yàgg fekk mu daal tari way sidna Abdou Xayri Jilaani tari way ba mu yàgg ma ba mu yàgg mu dugg ci xaside yi ba mu yàgg ma ne ko ah sëñ bi loolu ku ko wax moom mu ne xanaa ki ko mën a wax dama dama ree sax dama man ka noonu laa ko tontu ma ne ndax wax ji dama dugg de xam nga waxi sëñ bi la nuróog der jenn fekk mi may nettali sidna Abdou Xayri Jilaani bu taree ci lii ba yàgg mu bàyyi jàll ci keneen nit nitu yàlla kii nanga nanga ba mu yàgg nag mu dugg ci xasida yi nag xaan di wax rek ba mu yàgg ma ne ah, ku mu ci doon <laughs> ko mu ki ko man ki ki ko <laughs> ki ko mën a wax képp fa ko wax <laughs> moo tax loolu rek la waaye guddi googu nee na ma maa ngi ñaanal taalibe bi Sëñ Tuubaa yëpp kon nag te yàlla def na keroog laa ko mujj gis kon nag te booba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 sëñ tubaa moom dafa waxoon ne mboolem ñi ma nara ñi nara nar man ñépp sama borom wan na ma leen baa xam leen moom moom it mu daa wax ne dama faa ànd ak benn mbàkke mbàkke ne ko sëñ Saaliw njariñ la woon ma ne ko kii de nee na daa bëgg nga ñaanal ko mu amuk taalibe mu ne ma bëgg a amuk taalibe ab cër la mm. waaw bëgg bëggee am rek nee ab cër la Euh, am ku ne ko nag mooy addi yi dama ko bëgg a mën a joxe lool ñaan mu ne addi yi xam ne war na la rek xam ne war na la rek ab cër la donte mënoo ko xam nga ne war na la rek war la daal man de ba ma ab ab dërëm bi ma njëkk am dem ko sëñ Bàkke Jaxate rek bi ma ñëwee dama fekk sëñ bi ubbi ci palanteer bi rek ma daal ñu jox ko addi te boobu dalagut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 mu ne ña ci kees gi maa ñëpp dem nañ ba mu yàgg mu ñu ko ñu dellusiwaat ne ko ah waaye dellusiwaat nañ la ca mu ne sa xel dewaat na ci sëñ bi mu ne bi daa am boo xam ne daa xaal ji daa ñëw mu ne ni ñëpp génn nas tuuti mu génnaat ne xanaa da waxutoon ne ne ñëpp génn ñëw ko ah ñëpp dellusiwaat nañ daa mel ni mënuñu laa muñ de mu ne mu ne mu ne mu ne ca alhamdulilah ndax moo seet naa ne nit ñi man rek lañ bëgg alhamdulillah rabbil alamin si sey lol dal koy defat al mu daal jóg delluwaat delluwaat ci diin <laughs> dal dal kon nak dal ni dal ni dal ni ne nit ñi seet naa ko sëñ Tuubaa képp moo ñoro salaw fi ne di dama len dama len di ñewant di len yeeram ndax lool ndax ko ci gis rek ko ci gis rek seigne bi seigne bi ag na ko foofu da lay wone lool seigne man mën na cee dëgg ba dimbali ko ndax xol boo ci boo ci xar rek sëñ bi nga ciy fekk kon nag alhamdulilah war nañoo sant war nañoo sant ngir lu bari ndax uh, sëriñ Tuubaa ku yàlla may tawféex dafa am bis maam Cheikh Fall mu ngeen di wax wéradi sëñ bi yónnee ci ne yónnee ci sëñ Aliou Seye ak sëñ Matar si leneen dem leen seetal ma ko ñu dem seeti ko bañ ko seetee nag ñu ñëw ne ko ah mu ne leen waaw lu leen sëñ bi jox nga dañu ngeen seetal ma ko rek waaye jox joxuñu dara de ma ne ah yéen di kon kenn jigéen kuy seeti ko ëpp xanaa ko jox dara <laughs> ñu ne ko ah, ñu ne ko joxuñu dara mu ne mu toog mu yàgg mu ne ay ah, yéen xamu leen sëñ bi jox na leen dara de ci seeni bët la ko def <laughs> nas nas tuuti rek neeñ neeñ fekk neeñ kii lañ ngegenaay lañ ko fekk mu teg ko ci dënd bi waaye daa daa leen jóg sànni ngegenaay mais daal di wér fës as di waxtaan ne saafara ci seen bët yi la ko def waaw kon sëñ Touba noonu la mbirum demee fa muy jaarale mbirum du doon lu du doon looy foog du doon looy xam sa dégg sëñ bi rek mais ma sa dégg sëñ Saari bu ma saa nekk guddi muy déglu xasaay day togg moom yàgg mu ne xasida lenn ma ci mu ne mu ne man daal xasida li ma ci yàlla def ma ne ko ah ne moom loolu nga dégg gone yu ndaw yi di di déglu ñu naan ko musiqa musique man nan la xasida mel benn tiyaabee daa ci man bu ma ma sëlmalee gerte diglu ma ko daal day day mel ne néew ma fi waaw seetlu naa ne naka jekk noonu la ma yàlla bindee waaw xam nga loolu kon mu daal di may nettali nag sëñ bi nee na woon xasida naaru góor la woo xam ne dañ koo dañ koo wulli bam bam nooy ñu teg ca ab gawar bu man ngawar fo bu boo xam ne boo ca waree rek mu yóbbu la fa nga bëgg a dem nee na kon xasida ku ko fonk nee na eh, ku ko fonk dana la yóbbu fa nga ba nga dem nee na loolu la sëñ bi kon nag ñun ñi di taalibe war góor góorgóorlu bu baax ko képp koo xam ne ba nga gën a jege sëñ bi da ngay farlo ci jaamu yàlla fexe ba li yàlla tereet nga bañ cee laal loolu boo ko gisee ñaar ñi nga xam ne ñooy suñuy maraaje ci sëñ Tuubaa mooy ñem yar ak ñi ñuy tudd di ko tudd ci loolu lañ nekkoon ndax mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñuy tudd di ko tudd ku ci ne da gis ne kenn nangu du nangoo bàyyi liggéeyub Sëñ Tuubaa kenn ak taali bi du nangu kenn ëppale ko waaye jaamu yàlla doo gis kenn mën ko ci dafa sëñ Abdou Xaadir daa am bis ñu maa ngi moom ma dajeeg moom ci euh, sëñ Saaliw yi ñëw ko sëñ Abdou Xaadir fekk moom ne sëñ Saaliw nuyu ma fa fa ma bëgg a kii xabal nag loolu la war a wax ne ma nuyu sëñ Saaliw sëñ Saaliw ah gis naa la gis sëñ bu maat dafay géej ne ne ah suñ seen dama koy tooñ de mu ne moo dal ci sa <laughs> la dimbali ma ne bu ko dee fu ma bëgg a tiitloo ne ah wax sëñ bu dara de ma ne ko <laughs> nga ma ah, ma ne ko ma ah, naa def de ma ne ko <laughs> ëpp naa def mu ne moom maat dafay géej la ko wax maat dafay géej ma ne ko ah sëñ bi nag déet dama koy tooñ rek de dafa am bis ma toog ak sëñ Saliou am naar guddi gi ñu faraa toog ni guddi naar nag toog fa de di di yéem wax ñu di di di eh, nett li ci wàll yu njëkk yi bari di tari ci way eh, mu tasawuy foone yu njëkk yi bay waxit maamam ci gànnaar di wax ba mu yàgg ni mu daa ñaanale lislaam ak ni mu daa ñaanale mu yàgg sëñ Saliou daal génne eh, Matlabul Fawzayni daal ne ko waaw daal ne ma jàngal ko bi ma jàng ma daal ne ko yàlla ne ko yàllaahu yaa xafiisu يا ذا الأمر يا فائخ الخلق معا بالخالق نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن اصرف الرصايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من الناس وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب سيدي بن النار ما ba mas ngaa gis ko wax lii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 sëñ ba njëkkee indi eh, alxuraan ba njëkkee ba indi bandi alxuraan yi sax di ko tegal ñu ko dee dana loolu yëpp pexam seytaane <laughs> waaw ndax mën naa mën naa tax nga di ko diglu bu far du soo jàng alxuraan waaw suñ mag bi waaw bi ko waxoon ma ko indil di suñ gaaw nag ko indiloon di ko diglu di ko diglu loolu band yi mm-hmm. booba la fono di dooram mu ne moom yi lu amoon na ko suñ gaawoon laa naka li li amoon jamono ji rek lu ci ne lu ci ne indil la ko sëñ bi otoog courant courant sëñ bi amoon na ko njëriñ bi ah. waaye daa xëy jàpp ci fiil gi sànni ko <laughs> loolu la sëñ laa ko dégg mu ne daa xëy xëy jàpp ci ci prise bi nga ne mané ko lolou bu doon nité mu ne wa bu doon nité fofu la yam prise bi la jappal bop rek dag ko ni bu len ko fi way defaron defaroon nañ ko ba ba ko jakka ji leysan tan wal tax way waaye mu xam len nak li ba mako ko yag na mu ñaan na ko yalla bu yag ci ci ya sayidi yi <laughs> ya sayidi <laughs> <laughs> da ko daan jàngloo ne foofu fii laa ko lëmoon bu yàgg ba ñaan xuraan maanaam suñ tubaab kenn foofu dundul yaa si idi yaa boxeet yi jooju foofu foofu waaw ñu ko ci nooru ndey